impact bi euh, rëy na lool parce que dañoo nekk ci monde boo xam ne c'est un monde digital numérique tey boutique bi rombatoo ko ci mbedd bi daanaka li ëpp ci boutique yi suñu smartphone yi lañ nekk parce que nu sommes dans leer de la digitalisation tey boo xoolee tout le commerce est un commerce électronique même ñi nga xam ne dañoo ibbi seen i boutique ci mbedd bi sax seen i clients yu ci ëpp tey ci euh, ci ci portable yeeg. Mhm, ci smartphone yeeg ci réseaux sociaux yi. dañuy defee seen i commerce di jënd di jaay donc euh, dëkk buy doxee noonu nga xam ne suñu économie dafa faible te dafa war a dox dañ ko war a booster boo arrêté données mobiles yi da ngay causer un lourd préjudice à l'économie du pays mais li ci gën a doy waar mooy xam nga tey dañuy wax digitalisation banque en ligne. daanaka toutes les opérations sont digitalisées tey gis nga ni pour nga dem banque sax day métti parce que di nga fa perdre énormément de temps euh, ba pare euh, activités yi day taxaw ak yooyu mais da ngay préférer yow. Euh, mhm. utiliser réseaux sociaux yi daanaka utiliser le net daanaka banque en ligne à travers sa smartphone wala sa ordinateur nga dugg sa compte def très rapidement say opération euh, de transfert mhm. euh, de virement et cetera et cetera donc yooyu boo coupé données mobiles yi tey transaction financières yi arrêté nga ko bloqué nga ko te circulation euh, fiduciaire bi circulation monnaie électronique bi ci économie mhm. bu gaawee da cee baax parce que day booster économie moo tax données mobiles yi ni ñu ko arrêté euh, dafa am benn impact bu mag non seulement ci euh, ci euh, banque en ligne bi ci commerce électronique bi mais aussi si étudiants yi parce que bëri na ay étudiants yoo xam ne tey seen jàng en ligne lañ koy def tey notamment ñu nekk virtuel c'est c'est des universités virtuelles mmh. ñoom ñëpp dañoo bëgg connexion pour mën a def seeni i cours ñu bëri interpellé nañ ma ñeen ni interpellé nañu ci question boobu pour ñu wax ni ñu wax ni nañ ci wax parce que ça fait pratiquement euh, des jours mmh. euh, ñu ngi ratte ay cours am na ñoo xam ne sax seen examen pratiquement dañ koo raté donc alors que ay millions la ñuy fay pour seen année scolaire. mais lu tax waxoo leen wax nañ ci euh, la première fois wax nañ ci mais cette dernière fois bo malheureusement comme. da euh, ragaloon quoi. non situation non xam nga ni ñun ragaluñu ak sif moom euh, lu ñuy taxañ du ñu dugal ci wiir kaso gi bëri na te mosuñoo dellu gannaaw sagam banque yi la ñuy ragalul du ñeneen la ñuy ragal. donc euh, communiqué wuñu ci à fond parce que tamit euh, euh, période bi dafa xawoon a sensible dafa sensible woon bu baax a baax donc mënuñu woon communiquer en outrance sur cette question-là mais c'est l'occasion d'en parler mm -hmm. pour que les autorités prennent certaines dispositions